بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
mbokk yi sunu borom mu ne bismillahi rahmaani rahim alif lam ra moom moo xam lan la jublu ci loolu tilka ayatul kitaabil mubin loolu day mooy mandarga kawtiifu téere bu leer bi inna anzalnaahu qur'aanan arabiyya ñun yàlla ñoo ko wàcce muy alquran ci alquran muy lu ñuy jàng arabiyan ci làmmiñu arab laallakum taaqiluun ngiree ngeen doon ñu xellu nahnu naqussu alayka ahsana alqasas ñun de ñooy jàng ci yow gën jaa rafet ci lu ñuy nettali bima awhayna ilayk ci li nga xam ne ñoo koy wax yu jëme ci yow ay di la ko xamal jëme ci yow hada alquran muy alquran ji wa in kunta min qablihi la min alghafilin doonte ne bokkoon nga lu jiitu ñu koy wàcc ci yow te ña nga xam ne dañoo saggan ay saggani nu ñuy mën a jaamoo yàlla id qaala yusuf li abihi keroog bi yusufa di wax baayam ba yonent yàlla yaqub yaa abati inni raaytu ahada ashra kawkaba ay suma baay man day damaa gis fukki biddiw ak benn wa shamsa wal qamar ak jant bi ak weer wi raaytuhum li saajidin man day dama leen a gis ñu nekk di ma sujjuutal mbokk saar bi ñu jàng mooy suratu yusuf sunu borom subhanahu wa taala ni mooy histoire bi gën a rafet bu doomu aadama di jàng te mbokk alquran dafay am léeg-léeg ay sabab la tax yàlla di wàcce aayam te loolu it ci wàllu pédagogie la mooy bàyyi ba nit ñi soxla ko nga dog koo wax saxaaba yi ñëwoon nañ ci yonent bi alayhi salaam ne ko ndax doo ñu nettali ah ci histoire sunu boroom tontu ko ne ko nee leen kaay leen ma nettali leen histoire bi gën a rafet ci histoire yi jàng nañ saar bi passé suratu Hud presque histoire juróom ñaari yonent jàng nañ ko ci suratu Hud amma saar bi ci topp benn histoire yonenti kese lañ ciy jàng muy yonenti yàlla Yuusufa saar bi yëpp presque moom lay waxe loolu mbokk sunu sunu borom subhanahu wa taala gis nañu mi ngi ko ubbee ay xuruuf yoo xam ni borom xam-xam yo am nañ cay wuute. bokk na daal lu ñu remarqué mooy fu ko yàlla waxee day défendre téere bi looloo tax am nañu ne yéen arab yi ne ngeen Muhammad moo wax alquran yomb na mooy xuruf yi ngeen di jëfe rek muy alquran fexe leen yéen jël xuruf yooyu ngeen def ci alquran de la chaque duñ ko man borom bi ne alquran ji ñun ñoo ko wàccee mu nekk alquran ci làmmiñu arab ndax ña jëkk doon ñu ñu yónni ci ñoom mooy arab doonte ne mbokk sunu yonent bokkul ak yonent yu jëkk ya yonent yu jëkk ya ci seen xeet lañ leen yónni moom nag yàlla jagleel ko loo xam ne moom la ko jagleel mooy boo istu ila naasi kaafa nee na yónni nañ ma jëme ma ci mboolem doomu aadama niñ ko doon waxee démb ak barki démb kon dafay war maadaama alquran ji ci arab la wàcc ca ëllëg ci si biir njaago yi alquran lañ leen di laaj chinois yi alquran lañ leen di laaj wala fi bambara yi alxuraan lañ leen di laaj kon wareef la ci ne bépp langue képp koy jëfandikoo beneen langue bu dul arab ci déggoo arab alxuraan jooj ñi fexe ba mix ci yow yow it nga def ay jéego fexe ba dégg alquran ndax suñu borom moo ko waxoon mooy innahu la zikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusaluun lii wàcce nañ ko ci yow ak ci ñu ma la yónni ci daañu leen ko laaj borom bi nee nag wàcce na ko ci arab yi ngir arab yi xellu ndax ñoom soxlaaluñu woon ñu leen di traduiral alquran li yàlla wax yéeféer bay sàmm ci digg àll ba bu déggee wax yonent bi xam na lu muy firi mi ngi noonu laallakum taaqiluun mu ñëw nag ne kaay ma nettali leen la gën a rafet la gën a baax ci xissa buñ lay nettali donte ne mbokk julit fan yi passé maa ngi leen di wax benn waay boo xam ne nii bu bew ci sunu réew boo xam ne dégguma sax ñuy li ñuy nettali ci saay-saay yi su njëkk sa ñu koy nettali ci ñoom mu ne man sama baay bu diglee jibril sax bu ñëwee ma falankoo même waa jooju nee na xisa bi gën a soof ci alxuraan muy xisatu yusuf alayhi salaam di ko wax ci rajo yeeg télévision yi ñëpp dégg mbooloo mi ko wër nekk ñoo xam ne nii wallahi ay xar saxaleen tani toog di ko xam-xamaaral moo ko wax jooju waxu kéeféer la bu fekkoon sahabatul kiram ji du noonu dañ koy rey moom yaa ngi dégg doonte ne nii waxuñu ne dafa nekk yéeféer waaye waxu yéeféer la wax même waa jooju moo taxaw mbooloo wër ko ñu diffuser ko fu nekk mu ne man sànni jamra je suis contre ah dem fi di bokkul nit ñi rey fi non je suis contre ak fi di sànni jamra loolu mbokk da lay won Sénégal ni ñu wàcce ci wàllu ngëm ni ñu wàcce ci wàcc wàllu ñàkk xam diine moo tax nit am fit taxaw di wax ak ñoom langage yooyu mais bu dee dëkk bu xam diine dëkk boo xam ne yàlla lañ màggal màggal lu ñu ay sëriñ kenn ñu mënul taxaw li gën a fort ci suñuy lu ñuy tuddee institution jibril alayhi salaam alquranul karim aljamarat bi nga xam ne suñu borom mu ne min sha'airillah wa man yu'azzim sha'airillah fa innaha min taqwa alqulub nga attan a taxaw di wax wax ju ñaaw jooju jëme ci moom loolu mbokk nañ ci bàyyi xel yow mi seetaan ay film ko théâtre histoire boo mës a dégg partout dans le monde xamal ne la gën a rafet mooy suratu Yuusuf aka neexoon sunu doom yi nga xam ne jàngal nañ leen fan la Christophe Colomb jàlloon fan la Magellan jàlloon fan la Napoléon jaaroon fan la je ne sais pas dafi tubaab yépp fan jaaroon ñu wax leen seeni juddu seeni conquête seeni nangam aka neexoon ñu xamal leen xisas yi nekk ci alquran xisatu Yuusuf ah Huud Saalih ila axiri borom bi ne mi ngi noonu maa ngi leen di nettali la gën a sell ci alquran mooy li gën a rafet di gën a neex looy déglu alquran jii nga xam ne maa ngi la koy wax yu te yow avant loolu nekkoon nga koo xam ne xamoo ci dara mbokk yonent yàlla amuloon contact ak ahlul kitab jusqu'à quarante ans xamul woon ci alquran dara xamul woon ci ni ñuy jaamoo dara xamoon ne na daal xërum yi ñuy jaamu ci kaaba gi moom baaxut et que yàlla kenn la moom ak lu néew néew ci waa Quraysh ñoo meloon noonu xam ne xërum yi baaxut ah bokkoon na ci mel ne Umar ibn Nawfal xamoon nañ ne xërum yi baaxut mais nag xamuñu nu ñuy jaamoo yàlla kunta min al xaafirin kaay mel na tiddi la Yuusuf alayhi salaam naka la demee mbokk yonent yàlla Yaaqub dafa amoon ñaari jabar ñaari jabar ya ñoo bokkoon ndey ak baay te loolu daganoon na ci sharia yanquba benn jabar bu njëkk bi di aawa bi am fukki doom ñaareel bi am ñaari doom kenn ka mooy yusuf alayhi salaam ki ci des moom mooy binyamin doonte ne doomu aawa bi ñoo leen mag ndax nijaayam dama ko doon takkee da koo sàmmal fukki at mu mu may ko kenn ki mu sàmmal ko fukki at mu dokkoo may ñaareel bi Yuusuf ak Binyamin ñoo ñu gënoon a tuuti léegi nag Yuusuf a tëdd na guddi gént daal di gis jant bi wàcc weer bi wàcc fukki biddiw ak benn wàcc ñu ñëw ba ci suufam daal di sujjuut yéegaat ci kaw mu wax loolu bàyyam nu ko ah bàyyi de man lii laa gént donte ne ne mbokk gént day am sunu yonente sallallahu alayhi wasallam di wax ne nit ki dana gént fekk loolu adxaasu axlaam lay doon yaram bee tàng wala loom daan xalaat am na gént yu jóge ci yàlla te mooy heure boo géntee loo xam ne lu rafet la lu baax la yeneen ci bàyyi saam ne bu ko wax kenn lu dul koo xam ne yëg nga ne bëgg na la soo géntee lu lay lor ci sa wàllu diine wala di la lor ci sa wàllu àdduna loolu ci seytaani la jóge na nga ëf sa côté càmmooñ ñetti yoon nga muslu ci seytaan loolu du la lor jamais loolu it jullit war koo bàyyi xel gént nga accidenté gént nga say doom dee gént nga lu mën a doon ci kaw suuf gàllawaay ëppal sa côté càmmooñ ñetti yoon nga ne a'udhu billahi minash shaitani rajim ne yàlla yàlla na mu musal ci ayu lii nga xam ne dama koo gént gis samay nelaw te nga tranquille ne loolu du la lor abadan loolu kon muy gént donte ne ne bokk na musiba bi yàlla na too tey sunu rajo yi télévision yi ay gars ñu ngi fa boof ubbi ay vocal six cent vingt huit tel tel tel gars yi ne dañuy firi gént loo gént benn waaye bi nga nekk ci vocal bi pendant trois mille quatre mille cinq mille sax du dugg su ko defee mu ne démb damaa génte ganaar xat ji xeex sama bunt néeg ñu ne ko waaw loolu de lii la war a demee lii la war a demee automatiquement mbokk loolu du loo xamee ni nii la ñu xam te cosaanu la gën a xew ci firi gént mi ngi noonu wallahu aalam
قال يا بني لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين
sunu borom jalla wa ala mu ne qaala yaa bunayya yanquuba ne ko ay sama doom laa taqsus ru'yaaka ala ixwatika bul nettali mukk sa gént gi ci sa frère yi fa yakiidu laka kayda kon day dañ la fexeel ak pexe inna sheytaana lil insaani aduwwun mubin kii di sheytaane day ñeel na doomu aadama nekk noonam bu bir wa kazalika yajtabika rabbuk naka nii day la la tànne sa boroom wa yuallimuka min ta'wil al ahadis ngiree it mu xamal la la nga xam ne day firi ay wax ahadis fii day firi ay gént wa yutimmu nicmatahu alayk mu matalit la nga xam ne xiiwalam la ci yow wa ala ali yaqub matal ko ci njabootak yaqub kama atammaha ala abawayka min qabl comme ni nga ko mottalee woon ci sa bàyyi lu jiitu ibrahima wa isxaq muy ibrahima ak isxaq inna rabbaka alimun hakim sa borom yàlla aji xam la aji xereñe la laqad kaana fi yusufa wa ixwatihi ayatun lissailin nekkoon na ci yusuf ak frère am yi day ay kawtéef ñeel kay laa ji kawtéef iz qaalu la yusufa wa axuuhu jamoon ba frère ya daje naan yusuf ak frère am bii daal ahabu ila abina minna moom la sunu bàyyi gën a sopp ci ñun wa nahnu usba te ñun ñoo ngi nekk mbooloo inna abana la fi dalalin mubin sunu baay daal mi ngi ci réer goo xam ne réer gu leer la gu bir la uqtulu yusuf rey leen yusufa aw itrahuhu arda wala ngeen sànni ko cay suuf yax yaxlu lakum wajhu abikum mu daal di wiit ñeen leen seen kanamu baay wa takunu min baadihi qawman salihin su ko defee ngeen nekk gannaaw loolu xeet boo xam ne bu yéwénal la ñuy doon mbokku yusufa ak yonent yàlla yankuba ña nga ci néeg ba yusufa wax ko li mu gént mu ne ko ay sama doom gént gi day bu ko nettali mukk sa doomu bàyyi ca loolu mbokk yàgg na am seytaani di tabbal ci xolu ay doomu bàyyi ak noonoo rawatina bu dee dëkk bu mel ne Sénégal ndax ñoom dañuy jàpp ne liggéeyu ndey añub doom mooy sa doomu bàyyi buñ la rawee rek ci àdduna loolu day firi ne yow sa ndey liggéeyul woon lu baax donte la mbokk loolu suñuy wax rek la lu bëri fañ koy takk takkuñu ko ci mbaax ci wërsëg lañ koy takk waaye mbokk wërsëg yàlla dana ko jox ko baax jox ko ko bon am déet ak ñàkk yàlla dana ko teg ko baax teg ko ko bon waaye seytaane mooy liggéey loolu mu ne ko kon fexeel ba sa frère yi doomu bàyyi bu ñu dégg mukk gént gi ndax kon dañ le fexeel ak fexeel seytaane yàgg na nekk noonu doomu aadama te mbokk xoolal aadama alayhi salaam doom yum jëkk am ci kaw suuf kenn ka ñu koy tuddee qaabil moom moo rey frère am ba ñuy tudd haabil te ñu ne la tax mu rey ko muy problème mu jigéen rek moo tax mu rey ko te ñoom kese nekkoon ci kaw suuf loolu seytaane moo koy def moom mi man na ne woon sunu bay aadama ba génne ko aljanna seytaane noonu doomu aadama la dafa mën a gaaw a indi iñaan seen diggante ndax gént gii ngay gént day wane ne yow la yàlla tànn nga nar a nekk ab yonent yàlla dana la xamal nu ñuy firi ay gént dana matal ak xéewalam ci yow ca mooy def la yonent comme ni mu koy nar a mattala it ci njabootu bi Yankuba yépp ca mbokku bu ñu xoolee yonent yàlla yuusufa ci biir téere bi ñu nar a jàng dana ci firi ay gént yu bari firi gént googu sax moo koy nar a génne ca kaso ba nar koo fal buur loolu di xéewal gu rëy gu ko yàlla defal mooy lu waay gént rek boo ko xay yuusufa xam na loolu lan lay firi gannaaw ba it mu ne ko sunu borom day matal xéewalam ci yow mooy def la yonent doonte ne ni xéewal googu day jeexital ci famille Yankuba yëpp ndax xam ngeen ne am frère muy yonent loolee xéewal gu rëy la tey ñu ngi wax banu Hashim banu Hashim mooy ñu bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp kuñ ci xam dañ laa war a teral te loolu it jeune ibaadu yi ngeen bàyyi ci xel ku ñu xam ne kii ab shérif la doonte ne dafa jotee xam nag waaye képp koo xam ne xam nga ne kii ab shérif la ku mel noonu lañ ko war a teral jël sunu alal di ko jox hadiya ndax moom du lekk zakat dañ ngir ngir lan ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu koy firi wa ma asalukum alayhi min ajrin illa al mawaddata fi l qurba diina ji laajuma leen ci benn pay lu dul ngeen may ma cofeel ci samay jegeñaale kon loolu sharf mooy teraanga bu rëy la yàlla tànn kër Yankuba saxal fa yonente gi gannaaw ba seen maam Ibrahima nekkoon yonent seen maam Ishaq seen baay Yankub ñu am frère bu nekk yonent seen biir moo tax Yankuba ne ko comme ni mu ko matale woon ca sa baay ya Ibrahim ak Ishaq loolu it muy wane ne mbokk maam day taxaw place su baay boo déggee li nga xam ne nii suñu borom da ko wax ci wàllu miraas wala abawayhi mi ngi noonu li kulli waahidin minhumu sudus ila axiri bàyyi bu fa nekkul maam day ñëw taxaw place bàyyi loolu it muy wane ne xéewal yi nekk ca maam xéewalu doom xéewalu sët la waaye xéewal yi nekk ca sëtit xéewalu maam la la borom bi di wax naan xatta waa aljanna dañuy boole famille yi bu dee dañu dugg aljanna ku gën a kawe ci ñoom mooy maam ja wala sët ba wala ku mën a doon ku gën a kawe ci ñoom loolu foofu la ñu yóbbu famille bi yëpp loolu itamit mi ngi noonu di lim ko wax ci baayam yi muy ibrahima ishaq mu ne ko nag sa borom moom mooy hakim te na am mbokk loolu yankuba doon bañ mujj naa am te mooy noonu mujj na dox diggante yuusufa ak frère yi doonte nag sabab ba nekkul ci ni ñoom dañoo xam ne yuusufa yonente lay doon waaye beneen sabab la waaye day wone rek ba fitna amee nam terminé ak ñoom fiñ jaar ak yuusufa yëpp ak ñu leen yuusufa mujj baale day wone ne kon yàlla bi muy xool douze frères yëpp mu jël yuusufa tànn ko comme yeneen yàlla xam ne fan lay def ak yonentam allahu alamu xaysu yajalu risalata mi ngi noonu léegi gis nañu mbokk noonu googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it daanañu ko tere seytaane moo koy def waaye muslu ko sa kemtalal kattan ñaanal yàlla mu musal la ci noonu te mooy noonu déclaré woo waa ji am xéewal mais yàlla nga déclaré guerre moo tax suñu borom ne a yaxsuduuna annaasa ala ma aataahum allahu min fadli ndax dañuy iñaani nit ñi xéewal yi nga xam ne man yàlla maa ko def loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala daa di ne mooy al alim muy al hakim léegi nag dooga dugg ci soor bi mu ne day nekkoon na ci yusufa ak frère am ya ay kawtiif ay mandarga ci nga xam adduna nga xam diine ñeel képp koo xam ne yaa ngi bëgg a sàkk loolu te it mbokk jullit dafa war a sàkku xam-xam war a sàkku comportement bu rafet su ko borom nag na ko dalal alquran ji mu la yóbbu ci loolu frère Youssouf yi bis daje nañu benn réunion daje na ñun daal dañoo jaaxle te yonent yàlla Yaquba bi ko Youssouf waxee loolu mu nar a xam ne kii mooy yonent bi koy nar a wuutu léegi nag gëmeetul Youssouf alayhi salaam mënul toog fu Youssouf toogul mënul toog. une heure de temps bu mu gisul yusufa léegi nag frère yi daal di dem ne ñun daal dañoo jaaxle yusufa ak frère am bii di binyamin moom la sunu bàyyi gën a bëgg te ñun ñooy mbooloo mi ñooy liggéey ñooy def lii ñooy def lii ca moom ñii rek la gën a fonk léegi nag ana ban pexe moom la ñuy jëf ci loolu te loolu mbokk ñu wane ne yonent bi alayhi salaam it dañu ko doon tere xëy na sa xol ñàkkul kum gën a bëgg sa njaboot loolu tayoo ko yàlla koy def mais nag bu koy manifester ndax loolu day frustré ñi ci des benn ki nga xam ne ni mooy Bachir dafa ñëw ci ñëw ci yonent bi alayhi salaam naka sama doom Nu'man bi daal dama koo gërëm sama tool sàngam may naa ko ko yonent bi na ko waaw ndax sa yeneen doom yi may nga leen di tool mu ñu déedéet mu ne ko man du ma seedee lu jubut te loolu dafa mën a jur ay noonoo su defee bàyyi bàyyil xel lépp loo xam ne soo ko defalee sa benn doom mu jur noonu te ñi ci des nga moytu ko man ngaa defal nit lu rëy nag fekk ñeneen ñi duñ ko gis dara xale bi dafa war a tukki ñu investir ci moom ay un ay million keneen ki it xam ne bis moo ca tolloon sama bàyyi def ko loolu du dara ila axiri sunu borom subhanahu wa taala kon ne frères yi daje nañu ne sunu bàyyi daal moom comportement bi jaaxal nañu moom dafa réer réer goo xam ne réer gu metti la doonte ne mbon bu ñu bonoon rek la ndax mbokk ab yonent yàlla lu ñuy waxee dafa réer réer gu metti te ñoom xamoon nañ ne seen bàyyi mooy yonentu jamono boobu ñu nekk yonent yàlla Yankuba léegi nag ñu ne liy pexe mooy nañu rey Yuusuf nañ ko rey bu ko defee ñu noppalu wala boog ñu dem ba ci àll boo xam ne wóor na ne dootu mën ni bisee ci mukk ñu sànni ko foofu sunu bàyyi bu demee ba gisatu ko danañu faale léegi mi ngi noonu bu ko demee gisatu danañu faale loolu bi nga xamee ni nii am na ñu daal di ne it garawul xam nañ ne mbir bu bon la waaye suñ paree daal di tuub suñ paree daal di tuub te mbokk loolu ci piège seytaane la mooy mu ne la garawul ah waaw occasion soxna si ay njaaloon rek soo paree nga tuub yàlla da lay baal waaw pays mi bi ga fexeel rek boo gàñee nga yóbbu ca jàkk ja la nga xam ne mooy nangam jox un million jox miskin yi nangam jox miskin yi nangam soo paree nga tuub mbokk loolu piège seytaane la bu ci dugg bakkaar bu ñuy tuub d'avance amul loo xam ne dañ naan naa def li suma paree tuub même aj màkk sax amul loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax mbokk tuub yàlla koy maye ci xol lay jóge kenn mënu laa garanti ne boo defee bakkaar bi ba pare da nga tuub tuub bu sell abadan kenn mënu ko garanti loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ah léegi nag ñoom lii la ñuy décider nee nañ ko def mi ngi noonu
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
sunu borom mu ne qaala qaa'ilun minhum noonu la waxe aji wax ci ñoom laa taqtulu yusuf bu leen rey yusufa wa alquuhu fi gayaabati ljubb na ngeen ko sànni ca la nga xam ne moom mooy lëndëmi teen ba mu leen fa fadd ca teen ba yaltaqituhu baadu sayaara dana ko for lenn ci jëgg ji mooy caravane yi romb in kuntum fa'ilin su dee nekk ngeen di def qaalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf ñu ñëw na ko mosunu bàyyi lu tax ba yow doo am kóolute ci ñun ci yusufa wa inna lahu la nasihun te ñun de xam nga ne ñun ñu ko laay biir lañu arih arsilhu maana gadan yarta e waay bàyyi yóbbu ko yónnee ko ma ànd ak ñun suba dana mën a nekk di foo ca mooy nekk di witt ca la nga xamee ne mooy meññite àll ba yarta wayal ab dana mën a nekk di fo wa inna lahu la xaafizun te ñun day daañ mën a nekk ñoo xam ne ñun ñoo koy wattu qaala inni la yaxzununi an tazhabu bi mu ne man day dana ma tiis lool ci ngeen di dem yóbbu yusuf te it wa axaafu an yaakuluhu zibu wa antum anhu gafirun maa ngi ragal it mu lekk ko tilli ga fekk yéen yéen a ngi koy saggane qaalu la in akalahu zibu wa wa nahnu usba ñu ne ko ah bàyyi mu lekk ko till ga te ñun ñu nekk mbooloo inna idan inna idan la xaasirun kon de bàyyi nga xam ne ñun kenn gënu ñoo perte mi ngi noonu mbokk gaa yi bañu réunion ka nga xamee ne mooy seen mag di yahuuda te moo ci gënoon a magee daal di commencé am expérience ne déedéet bu ñu rey yuusufa nañu bàyyi teen bi nga xam ni jëgg ji romb ku ko romb gis ko dana fi ñëw sàpp si ndox nañ ko jël dugal ko ci biir teen balaa yàgg jëgg dina ñëw buñ ko gisee dañ koy jël ñoom yóbbu ko def ko jaam su ko defee yéen ngeen noppalu ci loolu ah léegi ñu daal di ñëw ci seen papp daal di na ko bàyyi ñun dañoo xamul lu tax wóolu wuñu ci yusufa doo nangu mukk mu ànd ak ñun ca tool ya ca ñun Yuusufa xam nga ne defuñu ko lu dul laayu ko biir suñu rakk la ah dañ koy laaye biir bàyyi ko suba bu ñëwee bàyyi mën na nekk ci biir tool ya man faa nekk di fa nekk di witt ak fo ca ñun dañ ko sàmm Yankuba ne ah man day xam ngeen ne Yuusufa mënuma teqalikoog moom dana ma tiis lool ci ngeen di dem di ko yóbbu te it ñaareel ba mooy day dama dégg till gu juux foofu damay bañ ngeen dem sàgge na ko till ga lekk ko fekk ne yéen yéen a ngi ci leneen ca lay yii yépp yanku ba bi mu koy wax mooy gars yi ba ñu yóbbu Yuusuf rek waaye nit ki da ngay wax jàmm wala nga noppi ndax waxam jooju ca la xale yu profité ne ah kon bàyyi dana nangu ne till gaa ko lekk gis ngeen léegi ñu ne ko ah bàyyi ñun ñu ngi nekk mbooloo boo xam ne nii ah, nit ñi toll yépp ñu mën a sàggan ba ak till ñëw di rey sunu frère di ko lekk loolu day bu amee nga xam ne kon ñun kenn gënuñoo perte gis ngeen layeeg Yankuba ah ba mujj convaincre Yankuba mi ngi noonu
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
sunu borom mu ne falamma zahabu bihi bañ demee ba yóbbu ko wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb ñu daldi daje ñoom ñépp ne nañ ko dugal ca la nga xam ne mooy lënd mi teen ba muy kumpak teen ba wa awhayna ilayhi ñu daldi wahyu jëme ci Yuusuf latunabbi'annahum bi amrihim haadha na yuusufa muñal bis dana mës a ñëw nga leen di nettali mbir mii ñu def wahum laa yashuroon fekk na ñoom du ñu yëg ne xam nga ne yow la ñuy waxal wa jaa'u ay abaahum ashaan yabkoon noonu la ñu dikkale seen baay ca ngoon ga nekk di di jooy qaalu yaa abaana ñu ne ay sunu baay inna zahabna nastabiq ñun de dañuy demoon di rawante wa tarakna yusufa inda mata'ina ñu bàyyi yusufa ci sunu bagage ya fa akalahu zi'b waaye till ga ñëw lekk ko wa ma anta bi mu'minin lana xam naa ne ñun sax dooñu mën a gëm walaw kunna sadiqin doonte dañoo nekkoon di dëggu wa jaa'u ala qamisihi bi damin kadib ñu daal di dikke ca mbubbam ba muy xamisam ba lii di deret di fen qaala bal sawalat lakum anfusukum amra mu ne déedéet bal taaral na ñeel leen seen bakkan benn mbir waaye day fa sabarun jamil danaa ko muñ muñ gu rafet wallahu almustaanu ala ma tasifuun yàlla nag mooy ka nga xam ne moom la ñuy dimbalikoo ci li nga xam ne yéen a ngi koy melal mi ngi noonu mbokku gaa yi dem nañu ànd ak yusufa bi ñu demee ci yenn téere yi bani israil yi nee nañu xas nañu ko dóor nañu ko lu ne def nañ ko ko ngiree ni dañoo jàpp ne moom moo dox seen diggante ak seen baay fekk yusufa xale la ñu ne kon nañ ko sànni ci teen bi ñu jël ko yoor ko ci teen bi bi ñu koy yoor ci teen bi suñu borom xamal ko ne ko yusufa muñal bis dana mës a ñëw ñu wër la nga leen di fàttali fii nga xam ne dañu faa jaar ak ñoom dégg nga donte ne ni sunu borom ba mu koy wax yusufa ki tegginam lan la wax lan la leen wax mooy hal alimtum ma faaltum bi yusufa wa axihi is antum jahilun ndax yéen a ngi fàttaliku la ngeen defoon yusufa ak frère am fekk da ngeen a réeroon gis ngeen waaye tuddalu leen sax teen baag yu deme noonu bis na ngeen nit ñi nga wax leen ko booba yusufa xale la mais yàlla mi ngi koy wax xamal ko loolu xam ngeen ni Isa ibn Maryam bis ba mu juddoo la commencé di wax ak mbooloo mi naan yàlla jox na ma téere jox na ma kaza jox na ma kaza ah léegi nag bàyyi na yuusufa ci teen ba toog ca tool ya toog ca tool ya toog ca kool tool ya ba ngoon ba guddi gay waaj a ñëw ñu daal di ñëw ak seen ñëw ci seen baay jub kër ga rek ku ne commencé jooy mel ni jigéen yi ndakaaru da ngay gis dañuy am ab dëj Dakar jóge Louga ñiy jóge Kaolack ñiy jóge ñiy waxtaan cootee ba yegg si bu ñëwee ba jub kër ga rek ku ne sànni sa musóor commencé yu xoo ko xalañu léegi ñu ñëw rek commencé jooy bi ñu nekkee di jooy yegg si ci seen baay ah baay de mbir am na mu ne leen lu xew ñu ne ko bàyyi ñun dañu tegoon Yuusufa ci bagage ñun ñu daw di course di tàggatu ji avant ñu ñëw rek fekk till gi lekk na ko gis ngeen donte ne mbokk aay bi dañ ciy dégg nekkate sport lu lislaam gërëm la ñii ay doomi yonent lañ mais gis nga dañ ni bi ñu bàyyi Yuusufa dañu demoon di rawante te loolu laa chaque année du cent mètres du nangam mooy lu gudd lañ daw parce que pour seen bàyyi gërëm leen la chaque année luñ miinoon ci aada moo tax loolu lañ layee kon daw nañu lu sori doon jëkkante avant ñuy dellu si fekk nañ ci gi lekk na Yusuf lekk na ko ba mu jeex tàkk bàyyi mi ngi noonu léegi nag xam nañ ne moom lu ñu mën a wax it bàyyi doo ñu mën a gëm même bu leen wax nañ dëgg it doo ñu mën a gëm te lu wax dëgg it bàyyi bu leen a gëm abadan gis ngeen léegi ñu daal di indi mbubb mi soo demee ci tubaab bi dañ naan un crime n'est jamais parfait li ñu fàtte mooy dañoo summi mbubbu yee mbubbu yuusufa bi ñu ko sànni seen dañoo summi mbubb bi rey benn bëy jël deretu bëy bi taqal ci mbubb ba mu tooy xëpp ñu daal di ñëw indi mbubb mi jox ko yankuba ne ko gis nga mbubb maa ngi ni till gaa ko lekk yankuba xool mbubb mi xool mbubb mi ne ah seen till jii de moom laa ne diir rey sama doom di lekk ko ci bubbi moom mbubb mi sax ba loxotee ko amu ci yaa ngi dégg dégg ñoom ñëpp ñu ne yàgg ala kulli xaal sunu borom nee na ñu ngi indi bi dañu kasib ci deret ci fen donte ne ni mbubb yusufa boobu dana ñëw ñetti yoon ci biir saar bi mbubb bi moo ko nar a sauvé ci ba ko jabare buur bi jingee njaaloo am déet shahida shahidun min ahlihi in kaana xamisuhu qudda min qubalin fa sadaqat wa huwa min alkazibin loolu da ngay gis mi nga tudd foofu xamisa ba ne waa ji doon atte ne bu dee ne ci kanam la xotti ko kon ndaw si wax ne dëgg Youssouf moo ko doon agressé ndaw si di ko rejeté ba xotti ko amaa bu xotti ko ci gannaaw nag kon ndaw si ne fen Youssouf a wax dëgg bëgg boobu yëpp da ngay gis ne moo nar a génnewaat bëti Yankuba ndax Yankuba dana jooy ba gumba dañ ko indilee xamisa bi Youssouf ne bu ngeen ko ko wanee rek dana gisaat xamisa boobu bañ koy indi ci sànni ko ci bëti Yankuba la gisaat am naa si nag moom ci place yi gën a metti ci Yankuba la mooy indil nañ ko xam sa doomam na ko till ba lekk na ko Yankuba bi mu xoolee na leen déedéet am na tey pexe boo xam ne pexe ngeen ko seen bakkan taaral ko ci yéen waaye day da ngeen ma fekk fa sabarun jamil dana muñ muñ bu rafet dimbi ni ko yàlla ci li nga xam ne yéen a ngi koy melal te mbokk sabarun jamil mooy lan muñ gu rafet yonent bi alei salaam nee na asabru inda sadmati l ula muñ dëgg mooy si mbir mi dalee sa kaw ah doom ja dee na oto ba accidenté na ah loxo ba nangam na kaza wa kaza si mbir mi tàngee ba dal nga ànd ak sa sago dellu ci yàlla loolu mooy muñ gu rafet te mooy gëm ne dogal bi yàllaa ko dogal nga gëmit ne yàlla subhanahu wa taala digg na ci ay pay loolu mu ne maa ngi dimbali ko yàlla te it su ne Aïcha radiyallahu anha moom it gis nañu ne keroog ba ka yàlla nattoo lu metti te mooy ñu jiñ ko njaaloo affaire bi dem ba jeexital ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba Aïcha feebar ci ba dem seen kër yonent bi moom ko fa fekkee ne ko Aïcha ah bu dee ne yàlla dalaa nattoo lii yaa ko def te ngaa tuub dellu ci yàlla mi ngi noonu soo ko defee nga muñ ak muñ ngir yàlla setal la Aysa ne papa tontul ma ko mu ne xamul lu mu koy tontu mu ne yaay ji tontul ma ko mu ne xamul lu mu koy tontu mu ne booba li ma mokkal ci alxuraan bëriwul waaye daal ma wax la bàyyi Yuusuf boo xool fa sabarun jamil wallahu almustaan ala ma tasifun daa di ne mu ne yonente bi alayhi salaam maa ngi muñ muñ gën a fet di dindindi ko yàlla ci li ngeen di wax Aïcha nee na yonente bi jógul ci place boobu lu dul jibril dikkal ko fa jàngal ko aayaat yi ñuy jàng ci suratu nuur aaya yooyu nga xam ne moo ko setal ba ila yawmi din mi ngi noonu ba nga xamee ne bépp chia bu koy waxaat wax ju ñaaw jooju kéeféer nga kéeféer nga kéeféer nga mi ngi noonu loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax muy it julit lu la mën a dal ci kaw suuf ngalawaay mu ñël mun gën a fet ci dindi nikool sa borom ca sa xel dal ni lu mu yàgg-yàgg suñu borom yàlla dana la ma sa xettali mi ngi noonu
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
sunu borom jalla wa ala mu ne wa jaat sayyaara noonu la dikkee njëgg ja muy caravane ba nga xam ne moo amoon moo ñëwoon fa arsalu waaridahum ñu yónni seen rootkat ba bi ñuy jàng démb firawna yaqdimu qawmahu yawma alqiyam fa awraduhum naar waxoon nañu ne waarid ñi ngi koy wax koo xam ne day dem ca tool ca teen ya ba ñu yónnee seen rootkat ba fa adla dalwahu mu yoor la nga xamee ne nii moom mooy baagam ba mooy dugal ko ci biir teen ba qaala ya bushra hada gulaam gannaaw ba mu ko génnee mu ne ah maa ngi woo ak mbég lii day waay benn xale bu góor bu ndaw la wa asaruhu bidaa ñu daal di koy nëbb def ko marchandise wallahu alimun bima yacmaluun doonte ne yàlla gënoon a xam la ñuy jëf wa charawhu bi samanin baxsin ay baauhu noonu lañ ko jaayee ci njëg goo xam ne gu wàññeeku la gu néew la darahima maaduda ay dërëm yu ñu yu ñu lim wa kaanu fihi min azahidin doonte ne de nekkoon nañ ñoo xam ne di doylu ci moom ay di ko dëdd ngir coono ba mu leen jural wa qaala lazi lazi ishtaraahu min misra noonu la waxee ka nga xam ne moo ko jënd ci biir Égypte li imraatihi ñeel soxnan fa akrimi maswaahu na nga teral wàccuwaayam asa an yanfaana mën na am mu jëriñ ñu aw nattaxidahu walada wala ñu jàpp ko def ko muy suñu doom wa kadalika makkanna li yusuf naka nii day la ñu dalale yusufa fi l ard ci kaw suuf wali nu allimahu min tawil al ahadith ngir ñu xamal ko it la nga xam ne mooy firi ay ay gént wallahu gaalibun ala amri yàlla nag mooy kay not ci mbiram walakin akthara annaasi la yaalamuun waaye li ëpp ci nit ñi ñoom nekkuñu di xam walamma balaga ashuddahu bam demee ba jot kattanam nga aataynaahu xukman wa ilma ci noonu lañ ko may atte may ko la nga xam ne mooy xam-xam wa kadalika najzi almuxsinin ci nii day la ñuy fayee ñëpp ñuy rafetal mi ngi noonu mbokk Yusuf alayhi salaam bokk na lenn lu téere yi wax def na ñetti fan ci biir teen ba gannaaw ba am ay jëgg yu jóge woon Jordan yi jëm Égypte bañ ñëwee ba romb teen bi ñu ne nañ dem ngir ñu am fa ndox bi waa ji ñëwee ba dugal baag bi Yuusufa téye ca baag bi mu ñoddi ko mu génn mu daal di woo ñu àndaloo ne leen kaay leen mbég am na far naa fi benn xale bu rafet mi ngi noonu te xam ngeen aada yu jëkk ya mbokk bépp xale bu ñu for ci àll moo xar mu ñu for ci àll yem pour ñoom xamuñu ci lu dul jàppale def la jaam nga xam ngeen boobu yàggul dara rek suñu mbokki naar yi daanañ ñëw suñu dëkk àll yi di jël xale yi ci penc ma yóbbu Mauritanie ñu ñuul ña nga fa gis lépp presque loolu mooy seen cosaan léegi ñu daal di koy jël daal di koy nëbb ndax mënoon nañ koo siiwal ci dëkk yi wër foofu waaye ñu nëbb ko suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ne maa gënoon a xam la nga xam ne ñu ngi koy jëf ñu daal di dem ca marché ba di ko jaay jaay ko jaay munta jar lenn ci borom xam-xam yi liñ ci wax mooy dañ ne kii day taar bi ko yàlla may ndax yonent bi alei salaam day wax ne daanaka genn wàllu taaru doomu aadama yi yàlla yusufa la ko jox te dana nar a feeñ ci sunu darsu suba bi insha allah mooy jigéen ñi nekk aristocrate nekkoon biir Égypte keroog bi ñu gisee yusufa dañoo dagg dagg seeni loxo ndax taaroom yoroon léegi ñu ne kii day ku ko jëndit bu màggee dana fitnaa say soxna ci biir kër gi kenn nanguwu koo jënd moo tax it fàccam bi bi wut mi daal dana fekk koo xam ne ku gàtt ku muxri koo xam ne jëkkër ji du ko soxla waaye xale bu jigéen bu xeesal ba weex kokat kokat boo ko indee mu mbindaan sa kër ah lu ne mën na caa xew de te it mu ngi xew ci kër yi ba tey ñu ngi noonu ala kulli xaal ñoom ñu ne duñ ko jënd loolu tax na ba prix bañ ca yaakaaroon da ngay gis ne bu doon xëy na jàpp nañ dañ ko mën a jaayee cent mille franc lañ ko mujj jaayee daanaka trois mille wala cinq mille lañ ko mujj jaayee ala kulli xaal suñu borom mu ne prix boo xam ne kenn xalaatul jaayee ci ab jaam sama ñun bax ay gërëm yoo xam ne yu ñu lim la ndax ñoom sonnoon nañ ci mbiru Yusufa léegi nag yàlla li mu dogal mooy premier ministre du Égypte nga xam ne moo topp ci buur bi kooku mooy ka nga xam ne moo ñëw jënd ko moo ñëw jënd ko fekk yàlla natt na ko moom amul doom moog soxnaam ñi ngi sëy amuñu doom mu daal di koy indi daa dina soxnaam kii day teralal wàccuwaayam ca it mbokk ndekete kër bu yaatoo ci surga jigéen yaa ko yaatal am déet mais borom kër lu bari liy xew ci suuf kër gi doo ko xam waaye soo amee jabar yu yaa daañ mën a yaatal say mbokk yaatal say xarit waaye lu ci bari ñi am tey jii takk jabari intellectuel yi xanaa ñoom seeni mbokk bokk seeni xaritu bopp waaye yow say mbokk bu ñëwee ci kër gi duñ fi ñeme yenn duñ fi ñemee fanaan ndax na leen soxna si xoole bu waxul dara yëpp ñoom xam nañ ko loolu moo tax ba li ngi noonu waa ji ne yow soxna si yaatalal ko te preuve bi mooy keroog ba mu neexul soxna si yuusufa kaso ba la fanaan yi am déet keroog bu mu ba ko soxna si sante bu mu defut kaso ba la yuusufa fanaan yi loolu kon ñu ngi noonu ñu bàyyi ci xel bu baax waa ji na ko ne ko kii mën na am mu jëriñ ñu wala ñu jàpp ko def ko doom te it jaam del wax lu baax di wax lu rafet te mooy waa ji ku amoon gis-gis la te jabaru firawna it loolu la waxoon firawna e waay bu leen rey xale bi ni Muusa asa an yanfa'ana aw nattaxisuhu walada ndax firawna it amul woon soxna si doom mu ne ko mën na am mu jëriñ wala ñu jàpp ko def ko doom borom bi subhanahu wa taala nee na noonu laa dalale yuusufa ci kaw suuf loolu it mu lay wan ne mbokk doomu aadama yi deel dalal sa xel Yaqubu moom ma nga nekk kër gi di jooy suba jooy ngoon ndax xamul lu yuusufa nekk lékkate yuusuf moom ñu ngi ko jëlee ca kaw ba moom ñu ngi dëkk ci kër fale ñu jàpp ko fi comme doom te mooy sa njaboot suñ mën a nekk dénk leen yàlla rek booy dund dénk leen yàlla booy dee dénk leen yàlla njaboot gi la tey nelaw ma su ma dee nangam nangam wallaay mën na am bis boo dee seen dund di gën a neex ñu ngi noonu loolu bàyyi ci xel bu baax su ko defee kon sunu borom mu ni nii laa dalale Yuusuf ci suuf ci kaw suuf jàngal ko mu mën a firi ay gént lii muy woñe ne yàlla mooy not ci ay mbiram wala fi dañ naan iñaan fanqul muur yàllay maye ñii ñu ngi iñaani woon yuusufa ba privilège bi ko bàyyam defoon ñu daal di ko koy xañ tey yuusuf moom ma nga fële ci biir pale ya ñu ngi noonu sunu borom nag subhanahu wa taala ni li ëpp ci nit ñi nag xamuñu loolu loolu kon jarul ngay iñaan kenn del ñaan yàlla rek ci ay ngëneelam sunu borom nee na ba mu demee ba am kattanam am ñu ne boobu mi ngi ci fanweeri at ak ñett sunu borom yàlla ne ca laa ko may xukman te mooy def ko mu nekk ab yonent daal di koy may xam-xam sunu borom it mu ne nii day lay faye ñi nga xam ne dañuy rafetal te itamit mbokk julit yow jeune bi gànnaa yool su jeunesse boo ko tegee ci fi neex yàlla dëppoo sa borom di def ay ndigalam soo magee fokk yàlla dana la may xam-xam booy ràññee fokk yàlla subhanahu wa taala dana la teral ci kaw suuf ndax yàlla nee na nii ma tere la yuusufa naka noonu it lay tere ne képp koo xam ne nii dafay rafetal yal na yàlla may ñu ak rafetal may ko suñu njaboot lii mbokk kon mooy nekk premier épisode ci sunu nu ñu ko xale yi di waxati série waaw série yonent yàlla yuusufa incha allah ndax dana nekk six épisodes yal nañ ci yàlla may luy remplacer épisode yi yéeféere yi jël di sànni suñu doom yi yal na yàlla saxal ci ñun xéewal yi nekk ci suuratu yuusufa suñu njaboot mu teg leen fa yuusufa jaaroon wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad li nga xam ne def ni xisa yuusufa gën a soof nee na ca bàyyi ba la ko jële ndax bàyyi ba nee na yuusufa dafa juum lu tax mu naan yàlla asijnu ahabu ilayya mooy kaso ma gënal li ma nit ñi di woo mënu loolu wax rek yàlla musul ma ci jigéen ñi musul ma ci kaso bi wallahi moom moo juum gaa yi yuusufa lu ko jural nguur du ca kaso ba waaw kon nga xam ne yàlla mooy al alim yàlla mooy al hakim te yàlla moo doon teete yusufa alayhi salaam ah ni ngi noonu wala fii dañ koy wax ne wërsëg dana jëlee ci njoñ loolu it muy woñe ne bépp jeune bu yàlla nattoo woon nga dem kaso it bul jàpp ne àdduna tukki na yàlla dana dogal léegi rek ñuy daje ak ñoom waaye lu ci bëri li ñu leen di wax mooy kaso mooy madrasat yusufa loolu la ko borom xam-xam yi di wax mooy école yusufa alayhi salaam te mooy kaso nekk na occasion doomu aadama mën a defaruwaat doomu aadama mën a jëlaat beneen élan wallahi benn waaye ñu ngi wax ne maa ngi sant yàlla bi ma yàlla dugalee kaso ndax nee na bi muy ñëw camp pénal alxuraan buñ ko mësan ubbi lu ñuul dong lay gis te léegi day bokk ci ñi nga xam ne dañuy jàng kaamil bi ba mu jeex takk te la ko ko may mooy dugg gi mu dugg kaso mi ngi noonu allah subhanahu wa taala alam naam waaw waaleykum salaam ci wàllu gént waaw waala kulli xaal dañ ne firi gént doomu aadama bi yàlla subhanahu wa taala may na nit mu mën a am lu ma xam ci gént mais erreur ba ca nekk ba ñuy def ñoom benn bi mooy dogu gi ñuy dogu da ngay gis benn waaye bu ne ko lii laa gént mu ne ko loolu nga gént léeg léeg lii la te mbokk firi gént bu dul yonent yàlla keneen ku mën a doon zann lay doon mooy jortu lay doon muy benn ñaareel ba it ka ngay firil gént day doon koo xam ne fokk nga xam ko xam ay axwaalam mooy ay dugam ak génneem xam la nga xam ne mooy dundam ba mën a xam kii lii mu gis ci gént lan lay war a méngóor ci moom looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana tëdd daan daana daana gis gént laaj Aboubacar waaw lii loo xam ci moom comme na mu ko gisee keroog ba ñu ubbi Taif mu xaw a fat comme na mu gisee keroog ba ñuy dem xare Uhud mu gis benn nag bu ñu rey ci kanamam loolu lépp muy laaj waaye lii lan ngeen ko gisee léeg-léeg nit wax ah mu ne ko waaw wax nga ci benn partie dëgg beneen partie bi da ngaa juum te mooy kon kenn ku mu mën a doon ku dul yonent yàlla. amoo pouvoir nit gént nga mën a jàpp ne gént gi exactement li lay doon ñaareel ba mbokk gént ñu gis ne mën na doon loo xam ne balaa réalisé wu fii ak ay fanweeri at lay doon yuusufa bi mu gisee ne papaam maa ngi jantale weer yi ñu ngi sujjut ci man ak fii gént gi di réalisé woo presque jege na fanweeri at looloo tax ba dañu naan ñii nekk ci rajo yeeg télévision yi dañuy lekk xaalisu doomu aadama yi waaye firi gént du noonu am na ay téere yu ci gaa yi bind ay boo géntee lii lii la boo géntee lii lii la waaye mbokk loolu lépp ay njoort la wa lépp luy yaqin amu ci wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ala kulli xaal loolu du waxi yàlla loolu waxi ay boo dee ay lu ñu wax la waxi ku xamul rek la waaye yàlla ak yonent bi kenn du leen tëkkale la chak lu dul ne koo xam ne dafa dof donte ne ay dof bëri nañ léegi ndax ñoo xam ne waxuma tëkkale yàlla ak yonent bi waaye sëñ diw la ñuy tëkkale mooy yàlla kooku moom beneen mbir la am naa yonent yàlla bi it kenn du ko tëkkale kenn bépp julit bu jàpp ne moo yonent bi ñoo yem kooku yéeféer la da ngaa war a gëm ne yonent yàlla mooy yonent bi yàlla bi gën la nga xamee ne ne mooy ay mbindaa fanam ñépp war koo topp ku ko toppul yonent bi gënal la sa bopp da ngay gis ne sa diine baaxul wallahu subhanahu wa taala alam naam naam mu ne dootul lebleeti ala kulli xaal mu ne waa ji daf ma leb daf daf ma leb ne moon dans une semaine la léegi nag ñu may dawloo dawloo ay weer ba ay at ndax loolu bor boobu daf ma yàqal la bëri ndax mën naa ca teg intérêt mbokk loolu lu tax nga mën a teg ci bor intérêt bor lu mu yàgg yàgg ci boroom du tax nga teg ca intérêt bu dagan ci lislaam abadan kii mu ne tamit nit ki daf ma yoral bor ma topp ko ba sonn nangu maa fay ma ne ko léegi man dootuma jëlee ci xaalis bi ndax loolu am naa ci am naa ci droit ala kulli xaal moom ci boppam bis bu dajalee xaalis bi ñëw na la am jox la ko loolee moom jaanam wàcc na ci moom bu la ko tegalee boo ko jëlee yaa xam boo ko jëlul yaa xam la ko war moom mooy fay la te it julit loolu nga xam ne du mandarga bu baax xaalis bi yaa ko moom lew na la doom yaa ko ko lebaloon yàgg na ci moom ñàkk googu mu la yàq fay zulmu la yeneen ci bari sax moo ko wax mooy matalul xani zulmu tooñ na la tooñ goo xam ne àq la bu mu lay fay yowmal qiyaama loolu ñu bàyyi ci xel bu baax waa di nga xam ne leb nga ko am loo ko fayee fayoo ko yaa ngi koy tooñ te àq bi da nga ko koy fay am naa bis bu la ko fayee yaa ko moom jël ko jëfandikoo ko wala nga jox ko keneen mu jëfandikoo ko waaye du ko ko bàyyee moom wallahu subhanahu wa taala alam ala kulli xaal kon mbokk mi ngi noonu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk